politiciens yi instant bi ñoom ñoo aye ñu ngi tappage dëkk bi xam nga ku nekk diw diw kii diw kële donc j'ai vu Kër Massar dañu ci benn côté bi côté Maam Dior bi gars yi dañoo dindi magasin yi gars yi jeunes yi fa defoon seen boutique yi xam nga ñi jël seen moonin dindi seen ay yére wala seen ay marchandises bopp teg seen ay cantine te xaalis boobu ñu ko defaree du gouvernement bi moo leen ko jox du meer bi moom moo leen ko jox mais gars yi xëy nañ du jour au lendemain dajji seen ay place sans tàggu leen ba pare ñu leen quoi ma me dis ñu si ban dëkk lañ nekk est-ce que est-ce si pays de droit lañ nekk ofet fait gumba kay boo ko yërëmul bàyyi kook saraxam nit boo wutalul liggéey joxoo ko xaalis bu mu liggéeyee bul ko yaakal place am wala boo ko boo ko tojee nga dédommagé ko en fait yeah disais même gars yooyu ñooy ñëw jaay reef xam nga dinaa leen defaral lii dinaa leen wutal liggéey te buñ toogee duñ liggéey quoi après peut-être pois la ñuy nekk ci ñun jeunesse bi ñoom ñoo ñu xañ liggéey ñun jeunesse bi tu vois seen ay doom ñu ngi ci ay école yu baax amuñu problème mais ñu ñooy xëy di kajang-kajangi bu ñu amee problème di ko liggéeyanti rey suñu bopp te suñu ay business gars ñëw yàqu ko